aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi noo yu baax yi nuyu bokki taalibe yi di nuyu bokki julli yépp ziar ñëpp sant ñëpp moo ngi gën a yar sa sunu cant sant sëriñ bi mii sunu lépp tey ëllëg ñu nu fàggul lépp te teg nu ci yoon wa xanaa rek di gën a soññ sama bopp di gën a soññ sama bokki taalibe di gën a soññ bokki jullit yépp noo ngi ab noo ngi noo ngi toll ci ab tolluwaay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 lu ko waaye wax tooñ ko ci tollu ndax suñu boobu mooy def mooy dindi korona suñu boobu danoo sàkk sàkk ko lu ko waaye wax tooñ ko muy wéy ci ndigal luñ ko digal mu def ko fu ñu ko yemloo mu yem fa xanaa nun kay nu war a seet suñu bopp nun ñi nga xam ne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 sëriñ bi te fas yéene rek nekk rek ci li mu nekk loo muy li mu nekkoon rek ak lu nu jafe-jafe te doyloo ko sëkk ndax fàggul na lépp lu mu war a fàggul tey ëllëg fàggu ko lu mu war a ñaan boroomam tey ëllëg ñaan na ko te jubóo muy pàggu téeb bi jubóo na ci boroomam bu dee ñaan gi boroom nangul na ko ko kon kay dara warul lu waxtu wu ne ñuy gën a wéetal yàlla waxtu wu ne lu gën a sax ci jaamu yàlla sunu kem kàttan loolu mooy sunu wartif àdduna euh, moom mel na melo bi rek laa am sa mu sa jàgg kon tolluwaay bi mel na ne am nay fitna am nay ay tiis am nay ay jaaxle waaye yooyu yëpp du ci dara bu nu nekkee ci leen war a nekk du nu yëg fitna fitna jenn ju nu yaa ju nu gàttandu du nu jaaxle ci dara ci met mbir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 waaye waaye yooyu yëpp dañoo nekkul ceen lan war a nekk rek waaye bu nekkee ci lan war a nekk duñ tal dara li ñu jikk te noppal nu te dimb di ñu dimbali mën noo musal ci su ci ci ci ci ci tiitaange yi moo xam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 wa maa xalaqtul insa wal jinna illaa liya'buduun wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun loolu rek doy na sëñ bi moom looloo ko fi andi woon moom la fi nekkee woon boole ci nag di gindi jaam ñi ci seen borom di wommat jëmale seen borom sëñ bi loolu rek la fi nekkoon looloo ko fi andi ci loolu rek la nekkoon kon nag ñun sant rekk lañ war a def suñu borom mi nu booleeg sëñ bi sant sëñ bi nga xam ne doon sëkk biir bi tey ak ëllëg sax ca dàkk nag eh, ñoo ngi eh, jéggalu ñëpp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 mooy li nga xam ne dara jigunu ci dund dundug àdduna gi waxuma laa dundug àllaaxira gi dara jigunu ci loolu taxaw tem ci li ñu fi andi yàlla te sax ja dàkk gannaaw ba ñu ko wéetalee nag ci lépp xam ne mooy def mooy dindi noo ngi sant ñëpp di ñaan sunu boroom ci mbaaxu sëriñ bi tolluwaay bii nu toll mel na ne tiital na ñépp waaye dan faaw nu ñaan sunu moroom jàmm yëpp sunu mbokki jullit yëpp sunu mbokki taaliba yëpp yàlla daqanu ndawam loolu nga xam ne du def luñ ko digalut fuñ te fañ ko yemloo mu yem fa waaw waaye nag du tee ñaan ndax ñaan jàmm yàlla yi jiitu bu naa mooy moxu moxul ibaada mooy li gën ci jaam jàmm kon ñaan faw nu def ko ñoo ñaan yàlla euh, gën noo gën noo sàmm gën noo aar gën noo musal ci lépp luy loraange musal na ci jëpp jàngoro ju mën a doon rawatina jàngoro yi gan jees ji noo ngi sant bu baax a baax a baax kàddu yi da munta ñàkk waaye eh, sunu xel dal na xam nañ ne jaamu yàlla moo moo moo yombul waaye mel na ne kenn ku ne ci ñun mu ngi ciy def kem kàttanam waaye nag màggu son sunu borom bi mu neexut a jox jox ak xam bu ñu xamoon lenn loo ko xam ne dina ko jox ak xam mën koo ñu mën ko ñu mën ko junj mooy julli ndax la jiitu ci lu war a jaamu war sax ci jaamu ga nu nu nu taaw mbagg ak suñu borom bi ca kaw te loolu ci lu nekk lañ ko mën a feeñale kon lépp loo xam ne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 li may wax na rek dañ ko war a jéem ba xam waxtu wu nekk di ko jéem a dund lu nu ko gën a xam eh, di gën di jege lu nu ko gën a dund di gën di mucc di gën di raw kon